Malick dama lay interpeller quand même ci poche creuse de votre bilan yi nga xam ne euh, Abdou Aziz euh, wax na ko euh, dafa mel ni rek comme en 2012 les gens du PDS un bon bilan dans le domaine des infrastructures yéen ngeen ñëw ngeen initier des politiques d'inclusion sociale yokk ko ci dans les infrastructures euh, excellent bilan, désenclavement du territoire, euh, un très bon bilan. Les gens qui ont l'habitude de faire le pays profond, mais nous avons deux mamelles essentielles de l'économie. Il y a un aussi, comme il l'a dit, l'industrie. Il n'y a presque plus d'industrie. Et vous voulez régler le problème du chômage. L'agriculture, vous aviez dit autosuffisance, Henri, en 2017. Aujourd'hui, on est fortement plus dépendant Euh, de l'extérieur ba nga xam ne gouvernement bi aujourd'hui dafay jël une enveloppe de six cent milliards di ko obligé euh, def ci ay ci ay ci ay denrées pourquoi agriculture industrie euh, pourquoi suivre ñu un peu le le le la progression des des des, des infrastructures et des politiques d'inclusion sociale. voilà merci beaucoup Maimouna li ma bëggoon wax pour mën a répondre concrètement ci question bi dama bëggoon. Euh, présenté ñaari faits yu fi am sur le plan purement budgétaire budget bi ñu am ren soo xoolee partie recette partie recette maanaam li nga xam ne ñu ñoo ko moom fii lañ ko mobiliser mu nekk recette fiscale recette non fiscale recette budgétaire moom moo ëpp le budget global en 2012 budget global mooy lan mooy recette yowoon endettement yowoon donc déficit ba woon donc la ngay jël déficit bi jël recette yi lépp Sénégal day am recouvrement recette boole ci déficit boole ci lépp lépp nga dajale ko moom mooy équivalent recette budgétaire suñu budget 12 ans après loolu c'est révélateur loolu c'est historique amul benn yoon bu xam ne en 10 ans wala en 12 ans réew attan na loolu c'est de chiffres qui sont là et c'est supérieur loolu nag su amee dañoo war a poser wu question fan la Sénégal jëlee xaalis ak lu tax Sénégal am xaalis ça c'est pour répondre à mon père le professeur Kalidou Diallo buy ne ñoom gisuñu croissance bi professeur croissance économique moo tax ñu mun a am capacité de mobilisation de ressources internes à travers les taxes fiscales les taxes non fiscales mais aussi la douane sànq Abba mu ngi wax waxu réforme dinaa ñëw si sa question euh, mais mun a mu ngi wax question de réforme ne way bépp xaalis boo xam ne ñu koy jur Sénégal dañuy taxer avec une agression fiscale boo xam ne moom d'accordu ci ci benn catégorie de population boo xam ne ils ont été bien identifiés à base depuis 2012 les réformes fiscales yoo xam ne moo am Sénégal fii c'est des réformes consolidantes lu ci bëri à chaque fois qu'on réforme c'est pas pour créer de nouvelles taxes mais parfois c'est pour wàññi yenn taxes yi parce que quelque part il la subvention non non non xaaral rek je t'explique bon xaaral rek waxaar waxaar xaaral rek xaaral rek c'est les renonciations que quand on subvention dañuy bàyyi su ñu nee ceeb bi dafa rëy dañ naan douane bàyyi leen bu leen fay depuis 2012 loolu la ñuy dégg on l'a tellement dit que l'opposition à un moment donné ils ont tiré sur les dépenses fiscales en disant que Sénégal lu muy bàyyi embo muy nekk ci àll bi boo ëpp foofu li muy recouvrer ñoom nag bu ñu ko doon wax dañ doon ne oui dañuy baal ay tubaab dañuy baal ay temps mais non soo xoolee les dépenses fiscales lu ci bëri ay renonciation volontaire la yoo xam ne c'est pour soutenir le pouvoir d'achat. faites par l'État ah. faites par l'État par exemple comme sur le riz par l'État pour au bénéfice des populations. attention et encore qu'est-ce qu'il atteste sur le plan purement scientifique c'est le taux de pression fiscale ñëpp ñoo xam ne économie la ñu sérieux nekk Sénégal dañu naan taux de pression fiscale au Sénégal c'est inférieur à son potentiel donc malgré les renonciations. malgré les subventions que nous faisons malgré des taxes fiscales yoo xam ne vraiment dafay baal lu bëri ci wàllu fiscalité ba tax ñu ñuy naan ñun Sénégal daal yaa ma neex fiscal moo fi am on parvient à mobiliser des ressources parce que simplement il y a une base taxable boo xam ne dafa élargie aba ah recette su augmenté woo ci contexte boo xam ne yow augmenté woo ay taux ñaari affaire moo naa a il y a naturellement une augmentation ou bien un élargissement de la base fiscale. mais quest ah. et ah, attends taux bi mu na xanaa yokkuñ ah attends je t'explique avant ah, man bu ngay wax dama déglu waaw mais ma mais mais boobu léegi ñu ngi dégloon te bàyyi ma yeggale man je t'explique parce que économie la wax donc tey su fekkee ne taux yi dañoo wàññeeku je te rappelle que en la première réforme bu amoon en c'était la réforme buy doon wàññi l'impôt sur le revenu ñëpp ay augmentation que xëy nañ fi dégg ñu ne les impôts sur le revenu dañ musul am le président en 12 ans il a diminué l'impôt sur le revenu ce qui a augmenté les salaires des autres qui a diminué notamment l'injustice fiscale sur les impôts sur le revenu TVA déggoo fu aarataan ah, TVA c'est communautaire kenn mënu ko yokk 18 pour cent déggoo fu ñu ko yokk voilà donc pour vous dire que en vérité su fekkee Sénégal dañoo am benn euh, taxe fiscale yu baax yoo xam ne dafay kii ñu am augmentation fiscale c'est pas euh, matraquage fiscal amul c'est plutôt une la taxe fiscale qui découle de l'économie qui est dynamique. non non attends waa xaar rek je t'explique qui découle de l'économie qui est dynamique l'économie qui est dynamique mooy lan mooy un taux de croissance soutenu pour une longue période depuis loolu loo bañ bañ bañ président Macky Sall loo ko contre contre contre tey ji nga xam ne mu ngi dem au moins ñu sagalee ko ne ko président tey kat nangu nañ ne yow tu es le champion du monde des taux de croissance maintenus à un certain niveau sànq on a parlé de ak loo mënti wax ñun ci wàllu économie ñun politiciens yi ci président Macky Sall xanaa la ñu xamee transformation structurelle de l'économie ba koy mën a débattre parce que effectivement il a constaté et nag je t'informe que la transformation structurelle de l'économie c'est un processus c'est un processus bànqaasu économie la ñuy changer la ñuy coppi loolu dafa laaj liggéey président il a amorcé sànq yaa ngi naan effectivement secteur primaire mais écoutez secteur primaire ñuy wax transformation ak léegi qu'est-ce production céréalière les en dix ans multiplié par trois waay waay waay dans dix ans nañ ko multiplier par trois bu yàggee li ngay laaj day am mooy secteur primaire boo xam ne mooy ëpp doole foofu secteur tertiaire wala secondaire toujours agriculture ceeb yaa ko wax président moom moo ne autosuffisance c'est vrai on n'a pas encore atteint l'autosuffisance mais nañ dugg ci chiffres yi les productions ont été multipliées par combien malgré l'augmentation la population mais on les importations alors que la production de riz augmenté wu na suñ ko bàyyiwul dina sotti loolu mooy transformation structurelle de l'économie c'est un processus. nga jël production mais 12 ans quand pour multiplier par 3 mais dama lay expliquer dama lay expliquer. ba tey ñaata at la 40 ans ba 2012 42 ans wala 52 ans yow en 12 ans tu multiplies lu ñu am 60 ba tey nga multiplier ko par 3. mais dama la ne suñ ko defaatee multiplier ko par 3 digg bii di ñëw nii suñu. multiplier ko encore. dix euh, mais loolu mooy. principe mais loolu mooy principe transformation structurelle de l' nekkul ne dañ koy wax tey rek mu am tey. Hmm. bànqaas yi la ñuy changé c' est fondamental. réformer nga jël waa xaaral rek moo wax la xaaral attends je t' explique. Hmm? il faut il faut avoir aussi la patience. d' si économie ne Pape Malick tey am na da ko teg ma dama ma li ma xam. Uh-huh. toujours dans le domaine de l' agriculture horticulture bi nga xam ne yaay wax sànq ne woy Baye Niass Maolana Cheikh Ibrahima moom moo ne woon il faut que ñuy def prise de terre mais ñàkk loolu xam nañ ko jëfe nañ ko moo tax la production horticole bi nga xam ne ci nord lay am mbayu dër production bi multiplier par deux. 60 ba tey multiplié par deux chiffre bi ce des chiffres. sont des chiffres mais, et mais, la mais, mal pas mal doo doo arrêter oui. euh, cette des chiffres là c'est-à-dire. mais moi j'ai l'impression d'entendre les mêmes discours qu'en qu'en qu'en 2012 soriwul production horticole. Ouais, mais... euh, on a diminué la facture. Euh, de de du riz. c'est c'est c'est-à-dire. c'est-à-dire c'est-à-dire 2012 quand Wade quitté. oui li ñuy waxoon ci transformation. Euh, dans le secteur. agricole li ngeen ci annoncé woon. ci ay ci ay projet les choses n'ont pas beaucoup bougé li ñu waxoon ci aménagement des terres euh, am na structures yoo xam ne sax doole ba ñu amoon elles ont elles ont complètement Euh, euh y en complètement même disparu c'est-à-dire euh, avancé wuñu lu bari. même mu dama ci d'accord. lu tax su ñu nee multiplier nañu production horticole par deux newul ci jaww ji la béyee. ba tax muy multiplier ah mais il faut me laisser parler aussi xam nga Abba ah, moi je pense que j'ai eu la patience d'écouter tout le monde il faut me laisser terminer su ñu nee multiplier nañu production horticole par deux newul na ci air bi wala ci jaww bi on a fait des aménagements on peut même faire une hypothèse en disant que peut-être même les aménagements ont été multipliés par cinq wala six xaw ma peut-être ratio bi am. pomme de terre non mais ratio bi dafa am. c'est la réalité donc donc donc ma la première dans l'histoire de ce pays-là on se retrouve avec le kilo de de de d'oignon à 2000 francs. mais pour la première fois dans l'histoire de ce pays bu wàccee ba wàccee day dem 600 800 mais mais mais mais pour la première fois dans l'histoire de ce pays ñu naan am na ñuy jooy parce que ils ont fait plus de production que n'en avait besoin ba ñu tax léegi di poser wu le débat sur l'agence de régulation des marchés bi nga xam ne dañoo war a xoolaat kañ la ñu war a dugal ak kañ la ñu war a génne. loolu c'est une avancée significative non non non attends c'est une avancée significative léegi laissez-moi terminer may mën a tu m'as posé une question pertinente parce que industrie dama si war a ñëw te yaa ma posé question bi donc pour vous dire que yooyu on est obligé de le dire parce que débat économique la débat technique la parlant d'économie parlant de débat technique on ne peut pas ne pas parler de statistiques maintenant les gens peut-être qu'ils ne sont pas de bonne foi pour am ay normes yoo xam ne daf ci nekk ba mënul falsifier statistique balaa may ñëw ci li ma posé question ci wàllu industrie dinaa dugg tuuti ci endettement bi te endettement bi benn exemple bu ndaw laa si joxe Paris bu ñuy def métro dafa amoon coow lu rëy lu fa amoon ñu ne c'est un investissement antipatriotique <coughs> combat boobu nag ay patriotes Sénégal ñoom ñoo ko fi defoon am na ñu ko jugé woon mais est-ce que Paris xam nga ñaata la ñu def dans le temps la ñu def pour mun a fay l'endettement boo xam ne moom moo andi métro de Paris soixante-dix ans la ñu fay soixante-dix ans la ñu fay bor pour mun a def métro de Paris et aujourd'hui les gens se posent la question de savoir lan moo nekkoon Paris su amuloon métro terre bi ñu andi ak BRT critique yooyu moo am aujourd'hui je suis ravi de constater avec vous que parlant du paiement de cet endettement on parle de horizon vingt ans hmm. maanaam benn moitié et demi mais ça c'est extraordinaire non attends attends rek loolu c'est extraordinaire c'est une révolution président Macky Sall sànq Mamadou Dione wax na ko andettewul pour def président dafa ànd teew pour dugal ci ay xaalis dugal ci loo xam ne lu important la fu may daanalee avant may wax ci justice euh, redistributive bi nga xam ne moom la ñuy wax ne way croissance bi am na mais Sénégal la yam dinaa si ñëw foofu laay daanalee mais par courtoisie et par respect dinaa ñëw un peu si mu ma poser question ci industrie même nag je suis d' accord avec vous que li ñu waroon gën a góorgóorlu ci industrie dafa xaw a des mais même nag comment tu peux industrialiser un pays boo xam ne courant xuy kamaj xuy kamaj même notre consommation des ménages en termes d'électricité mënuñu ko satisfaire mais yooyu c'est des préalables qu'il fallait faire il fallait nga régler le problème de l'électricité mais industrie dafay laaj énergie bu bëri ils sont des des des des des unités à haute valeur vraiment en capacité bu ñuy soxla ci courant dafa bëri donc dëkk boo xam ne ménage yi sax amuñu courant lan nga mën a taxee na da ngay créer usine il fallait que le président Macky Sall s'attaque à cette question il s'en multiplier par trois les capacité sept cent te ñu ngi ci ay mille sept cent et quelque comme du ko defee secteur yëpp donc aujourd'hui on peut dire cap sur l'industrialisation beneen bi mooy balaa ngay transformer ay produits da ngay am suffisamment gerte boo xam ne soo béyee gerte def ci tege-dege def ci maafe def ci noflaay gerte ba jeex parce que y a pas suffisamment de production fan ngay produire bay transformer le président a dit investissons et par trois la production arachidière moo tax tey foo dem yaa ngi fekk usine yooyu triturer affaire yi di ko yóbbu ay Chine ak yu mel noonu donc loolu mooy les préalables qu'il fallait régler mais mais mais c'était important et le président l'a fait donc aujourd'hui je suis d'accord dinañu war a gën a accentuer et puis le prochain président yàlla nekk su ñun mais dina am chantier bu am solo ci wàllu boobu. mais mais pas mal parce euh, lan nan lañ mën a comprendre qu'on augmente de de manière euh, conséquente la production dañoo à un moment donné on disait même que commencé nañu am. autosuffisance euh, auto auto auto suffisance et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on dit li ñuy woowee euh, dundee euh, bay bay bay dundee bay concept bay dundee boo xam ne euh, dina dinañu am de l'oignon en quantité suffisante et à un à un bon prix ensuite pomme de terre am na ay jéego yu am solo fii ci wetu lac de Guiers dans les champs là am na fa société bu fay def plus de soixante mille tonnes de de de pommes de terre mais pomme de terre bi tey la gën a cher nan la ñuy expliquer ñu am aujourd'hui mille sept cent mais mégawatts électricité doon secteur bi nga xam ne quand même euh, def ngeen fa jéego yu am solo mais ñu ñëw ba à deux à à une année du terme de votre mandat l'électricité coûte plus cher au au au au ménage au au ménage sénégalais c'est-à-dire yooyu lan moo koy expliquer la denrée elle est là mais on n'arrive pas à à s'en servir. xam nga tey soo jëlee wàllu agriculture aujourd'hui le challenge aujourd'hui c'est de réguler le marché parce que autant da nga naan day cher te ñu ngi koy produire fii autant léeg-léeg nga dégg ci rajo bi yéen ngeen jàpp ne nit ñaa ngay jooy naan suñu soble baa ngay nëb donc y a un travail qu'il faut faire maintenant pour mun a fexe ba marché bi régulier de telle sorte que prix yi dañ koy maintenir à un niveau constant. ñëpp du kenn dugg ci gaañu loolu effectivement c'est un challenge c'est un défi qu'on doit relever mais li am solo te ñu koy wax tey mooy fan la production bi toll lan la croissance bi andi loolu moo nekk débat bi tey peut-être après nañ mën a dugg ci loolu beneen bi mooy fa may terminer may mën nga may ma ci euh, wàllu toujours électricité nangu nga effort yi nga xam ne moom la président Macky Sall def tey avec ces efforts là mën nañu aujourd'hui faire cap sur l'industrialisation ba pare président commencé. mais non commencé avec une électricité qui coûte plus cher. Sénégal aujourd'hui moom moo gën a cher courant. loolu c'est le problème euh, dans la sous-région les gens ils se déportent en Côte d'Ivoire. loolu c'est le problème mais mais loolu tout le monde est d'accord avec l'exploitation du pétrole et du gaz en perspective. loolu c'est un ça sera un vieux souvenir yaa ngi dégg ah non non bien sûr ça sera un vieux souvenir parce que tout le monde le sait on l'a démontré que le gaz et le truc dina wàññi euh, forcément euh, le prix mais li ma bëgg expliquer may mun nga may moom mooy wax foofu noonu cest dire que euh, xaalis bi nañ koy utiliser tey li nga wax sànq les subvention que l'État a fait sànq pour répondre à mon tonton le grand communiste euh, mon mon oncle <laughs> bon ñoom ñoo ma formé ah mon mon père fut communiste bien sûr membre du comité central du PIT et c'est avec honneur d'ailleurs que je may def débat xam naa ne il va rester avec fierté pour vous dire euh, euh, tey tonton su ñu amee de croissance moo ñu mën a permettre ñu mën a joxe ay subventions yoo xam ne population rurale bi dañ koy yëg s'il n'y avait pas de subvention tonton le prix du ceeb su ñu ko jëndee 300 francs on allait l'acheter à 700 francs ou bien à 800 francs tonton s'il n'y avait pas suffisamment de croissance il n'y avait pas suffisamment de subventions et c'est parce que le président la République pense aux générations aux, aux populations rurales yaa ngi dégg population rurale qu'il mobilise plus de milliards par année wala milliards en termes de subvention notamment dans le secteur de l'électricité mais aussi dans le secteur donc de la grande consommation am solo loo xam ne président Macky Sall mu ngi on ne parle pas seulement de Dakar on ne parle pas du Sénégal euh, de de de de Thiès Dakar Touba non non non infrastructure soo koy wax da dugg ci monde rural bi su ñu la waxee tonton ne la 20 pour cent la ñu amoon ci taux d' électrification rurale tey ñu am 60 pour cent Ndiédiène nga dëkk Mbadakhoune laa dëkk bu ñuy jël pouvoir bi tey ay benn ñaar village la ñu mais tey foo dem électrification fépp la am mais loolu c' l' investissement c' est des route yi le président de la République l'a fait partout c'est vrai fépp amul tëli mais les pistes rurales foo dem yaa ngi ko fay gis donc pour vous la président xam na lan mooy équité territoriale yemalewul mbir mi yëpp Dakar lu mu def Dakar moom la def fële mais ku ci nekk ak soxlaam Dakar ils ont réglé le problème de l'électricité mais mbadaxul jas Ndiédiène Kër Socé Fouta seen problème nekkul woon suñu problème ñun Dakar ay embouteillage mais suñu problème mooy courant président réglé leen ko loolu ce sont des efforts suñ la waxee nombre de villages yu ñu électrifié entre 2012 ak tey dama leen ne depuis Sénégal bu mu nekkee Sénégal ba léegi depuis jamonoy tubaab bi ba Macky Sall bu mu jël réew mi li fi Macky Sall def ci électrification loolu c'est une réalité qui est là kenn mënu ko weddi benn président Macky Sall def benn président defu ko tonton loolu président mu ñuy quitté au moins sax nañ ko wax mu kontaan xam ne ñun gis nañ ko ñu ne ko nag waroon nga gën a góorgóorlu su ko defee benn président bi ñëw mun nekk message bi. mais Pape Malick ngeen produir ngeen wàññi délestage yi zéro délestage euh, ngeen produire du courant en quantité suffisante ngeen installer ay centrales yu bees ngeen moderniser centrales yi ñu ne gongo 2019 da ngeen ci sukkandiku woon ngeen ñëw ba 2023 pour euh, résorber seen déficit euh, pour gal pour pour pour glaner euh, cent euh, milliards alors que vous aviez réussi a à, à, à, rendre accessible euh, l'électricité pour les ménages et même pour les ménages pauvres euh, ngeen jël euh, euh, subvention bi rocc ko et puis dañu appliquer un prix de l'électricité bu bu bu bu kenn mënul méngale ak ak ak waa sous-région mais mais xam nga dafa am aussi tamit benn stratégie de subvention à un moment donné aussi su ñu demee bay def subvention ñu dem ba ñëpp di ci bénéficier wu te ñëpp peut-être amaana waruñu ci bénéficier wu état bi tam day toogaat di defaat ay ciblage loolu aussi bokk na si ma jox la exemple benn exemple attends j'explique non attends c'est le FMI vous a dit que les subventions sont excessives FMI waxuñu moo tax si FMI waxuñu waaw je t'explique wax na ko waaw je t'explique loolu c'est une idée reçue et je vous demande waaw je vous demande que ko waaw je vous demande ça d'ailleurs Moustapha Moustapha Ba ci revue bi mu dem Washington ci le présenter sa feuille de route ne dinañu euh, économiser cent milliards et dinañu dindi drastiquement la la subvention d'ici deux mille vingt cinq c'est pas une idée reçue c'est une note c'est une note du gouvernement du Sénégal c'est pas une idée reçue léegi léegi mën naa leen expliquer de reçu FMI dina am prétention wax ñu ko parce que ñun ñoo sàkku programme ci FMI ñun si on n'avait pas un programme avec le FMI FMI ñun ak ñoom du ñu séq loolu en toute indépendance la ñuy def mais ñun ñoo jël suñu volonté ñun pour donner un signal fort au marché international. Pour, pourquoi l'année amee ah, indépendance. ah bien sûr non non attends mais ça ah. c'est les principes. ils vous prêtent de l'argent dama lay expliquer <laughs> c'est des principes non c'est c'est des idées reçues FMI dafa toog ñun ñoo xëy ne FMI dañoo bëgg nekk programme programme bi ñun gañewuñ ci lenn lul Sénégal yëpp monde bi yëpp gis ne Sénégal kat mu ngi ci programme donc réew mu wóolu boppam la. donc nag soo d'accord nit ci programme yéen ñaar da ngeen waxtaan mën na la ah man de pour nga joxe benn signal bu baax ci kii bi nii ak nii nga war a doxale donc personne ne nous a imposé quoi que soit maintenant loolu su amee dañ koy wax mu clair maintenant nag à un moment donné gis nañ ne ciblage yi war nañ ko joyanti ñu joyanti ciblage yi et loolu cela ne nous a pas empêché gars yi dañ ne plus de 700 milliards de subventions c'est excessif mënatul nekk di ngeen ci wàññi 300 milliards ren ngeen dem jël këpp 100 milliards loolu moo tax électricité bi cher. ne ne nous vend pas un programme à un moment donné on vous a dit arrêtez-vous les waaw ah, bon peut xam naa ñi may suivre xam nañ li ma bëgg a expliquer cest à ñun encore une fois parce que loolu tamit dafa. waaw da ngeen ci ay ah, programmes bien sûr il faut que ñu leeral loolu parce que pour pouvoir euh, pour pour avoir accès. bëgguma comme ñoom ñu yaakaar ne. fi nekk rek di yor benn batam di commander wax bu fekkoon ah, bu fekkoon léegi nag Abba Abba xaaral di nga dina ñëw ci yow. Abba aussi man. parce que programme wax. Abba xaaral Abba xaaral. parce kenn xamul lu mu dund. wax nga fi loo xam ne kenn xamul la. voilà donc terminer daal mooy Sénégal réew mu baax la ci wàllu économie globalement waxuma ne lépp gongo mais réew mi am nañu suffisamment de croissance on a suffisamment de recettes et de ressources et en conséquence loolu moo tax ñu mën a liggéey li nga xam ne moom la ñu liggéey donc ki nga xam ne moo fa nar a nekk ëllëg dañuy ñaan yàlla mu nekk suñu candidat bii di Amadou Ba yaakaar naa tey taxaw na ci bànqaas bu leer boo xam ne ëllëg su yoree réew mi dina wute ak réew mi nga xam ne dinaa sànni xeetu di sama non non il faut qui qui va sauver la moi je me rappelle de cette une là qui va sauver l'année et ça c'était c'était une instrumentalisation à l'époque comme li leen dal nii rek à l'époque c'était une instrumentalisation donc tey inchallah tonton tonton ma sa candidat su ñëwee laissez-moi sa candidat su ñëwee gars yi ñoom ñoom ña sax ñooñu noonu nekkoon ci opposition bi la a fal su ñëwee daal il va hériter d'un pays boo xam ne nekkul xuy boo xam ne président comme ni mu ko waxee stabiliser na secteur éducatif def ci ay salaires yoo xam ne musul am c'est historique monsieur le euh, euh, euh, professeur il faut que nous confirme que les augmentations des salaires yi président Macky Sall en tant que historique il faut nga defal ñu ci leçon histoire si, si tu prends du point de vue on a fait plus que vous. waaw non non non man non. xam nga taux non non mais xam nga taux mais man nu may wax. je parle des taux. waaw moi je parle de la masse. l'énormité d'enseignement l'énormité d'enseignement il dit que pour cent. nous à la portée de 25 à 50. non léegi parlons de la masse. alors non la masse mooy. ñu xëy suba teel rek mais benn enseignant tey ci benn réforme bu ndaw. salaire am yokku na de 300 francs waxuñu waxu loolu moo gën a concret tonton. mais pour que ça il faut qu'il soit titularisé qui a la titularisation. ah mais au moins donc effectivement vous avez fait des efforts. mais nous avons fait plus que vous. tonton mon étudiant là président le mérite et moi je le dis avec force. le président mérite euh, notre soutien. il doit être remercié parce que dans tous les secteurs il